الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ورحم الله عن أصحاب رسول الله وقد لاقوا كل مرارة حرة ليصل دين الله إلى كل بقعة وأرواح وهم شهدوا بدرا وقيبر بعدها ويوم حنين ودماء تسببوه alhamdulilahi mbokk yi santi sant yàlla ak julli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla tawféex di nuyu mbokki internet yi euh, fépp fu ñu nekk rek ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan di Mayenne 7 ñu ngi nuyu di la ziarah di la ndokkeel ci koor gi di la baalu di leen baalu àq di ñaan yàlla yàlla yàlla nangul ñu suñu koor di fas yéene continuer ak yéen waxtaan bi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene def ak yéen ci weeru koor wi fii ci seen seen chaîne set di fàttalikunteeg yéen rek ndax ñu ngi ba tey ci eh, ñetti eh, ñetti eh, xaaj xaaj bu njëkk bi nga xam ne mooy xaaju yërmande <coughs> te yunti sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy suñu roywaay mooy ki nga xam ne euh, moom la ñu yàlla royloo pour lépp lu ñuy jàng ci diina ji wala lépp lu ñuy euh, tegtaloo ci diina ji rek dañuy dellu ci moom ndax moom mooy delluwaay bi waaye koor comme niñ koy waxee saay si nekk di weer woo xam ne weeru profité la pour def yiw weeru profité la pour defaraat sa jikko weeru profité la pour euh, fompat sa seetu xol weeru profitoo la pour tàggataat say cër bu baax ci wàllum jaamu yàlla ndax weeru koor bu di nga gis eh, ni jàkka di feesee di nga gis ni gaa di góorgóorloo ci ci diine ji waaye di nga gis tamit ñaawteef yi ni muy wàññeekoo kon ci ngay gis rek delu ci xadis ba nga xam ne la yonent sallallahu iza jaa ramadan futihat abwaabal jen futihat abwaabal jannati wa xuliq wa xuliqat abwaaba naar wa sufidati sayatin yun sallallahu alayhi wa sallam dafa ne su weeru koor ñëwee dañuy ubi buntu aljana yi dañuy ubi buntu aljana yi waaye tamit daal di tëj buntu safara yi daal di jéng seytaane yi tamit seytaane yi dañ leen di jéng waaw kon ci ngay gis ne def mbaax dafay yomb waaye soo jàngatee dëkk bi ni muy mel ci mbaax ak ci eh, jaamu yàlla ak ci ndëngte gi ni muy wàññeekoo ñi nga xam ne eh, lu yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon eh, moo fi nekk waaye bu boobaa lan moo ñuy dese rek pour yàlla bu ñu yàlla tënkalee seytaane lenn rek moo ñuy dese mooy suñu bakken moom la ñuy bëreel moom la ñuy fexe saay su nekk rek lim ñuy digal ñu bañ di ko def ndax bakken dafa sob sob goo xamante ne booy wax mu ne xaaral xaarama participer si booy déglu mu ne xaarama participer si booy dox mu ne xaarama participer si booy jëf jëfuk jaamu yàlla sax mu ne xaarama participer si waaye da ngay fexe ba góorgóorlu yar ko ba nga xam ne lépp loo def rek ne ko toogal xaar ma bu yàggee eh, booy dem sax du la topp ba di jéem a participer si say jëf yàlla ñu ko yàlla defal Euh, benn saxaaba bu ñuy wax abi amaamata dafa ñëw ci yontu bi sallallahu alayhi wa ne ko yow yontu yàlla bi maa ngi lay ñaan nga digal ma mbir moo xamante ne ci yow laa koy jëlee secret boo xam ne ci yow laa koy jëlee yow yontu yàlla bi naka noonu yontu bi sallallahu alayhi wa xool ko ne ko alayka bi sawm ne ko maa ngi lay dénk koor ne ko dénk naa la koor kon ci ngay gis ne eh, ki wéet ak yonent bi di ko laaj secret bu mag yonent bi ne ko dénk naa la koor kon koor secret mu ngi ci waaw ndax eh, nettali nañ sax ñoo xamante ne feebaru yaram lañ amoon dem ba weeru koor ñëw bañ ooree weer yi ba mu jeex dañoo dellu ci médecin ba mu xoolaatee seen yaram ne leen eh, feebar ba nekkatu fa ndax bés amna ben xare bo xamantene sallallahu alayhi wa sallam dañ ko waron xare ci am ben bour bo xamantene dafa bëggoon jàppale yonentou bi dimbali ko ci xare bi mu ne ko dinañ la dimbali euh ci walu ay fas dinañ la dimbali ci ay ngànnaay ba dinañ len yebalalé sax ay docteur ay médecin yo xamantene ñom ñoom ñoo leen di faj ku febar sax ñom ñoo lay taxaw yonentou bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam fas yeeg ngànnaay yi moom soxla nañ ko waaye médecin yi moom dañ leen di noppal du ko jar ndax ñun li ñuy feebar du bari ndax dañuy saxoo woor kon ci ngay gis ne rek euh, weeru woor gi ni ngay xoosee sa biir bi noonu daf koy nettoyer daf lay dimbali ba dafay génnewaale yenn euh, ayib yi nga xam ne moo nekkoon ci moom waaye ba tey rek bu ñu delloo ci njàngaleem yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yërmandeek yonentu yàlla muhammad ci jaam yi ci yërmandeem ci xeet bi dangay gis saay su nekk yërmandeem dafay feeñ ci mbooleem jëfam yeeg mbooleem waxam yi yéen salaa salaam dafa mos a taxawal julli euh, ndax dafa ne moom moo wax ci boppam sax ne mosuma euh, mu ne mu ne wat naa ne bés taxawal naa julli ma tàmbali fas yéene guddal julli gi ma fas yéene guddal julli gi waaye ma dem ba ci biir ma dégg jooyu xale ma dégg xale buy jooy waaw bi ma xale buy jooy ma daal di ñeewantal bañ sonal yaayam ma daal di gàttal julli gi ngir bañ a diisal yaayam ngir bañ ko sonal waaw nga doon ngay gis rek bu nekkoon suñu jamono bi dangay gis koo xamante ne mu ngi fi tasu koo xamante ne mu ngi def ay geste pour ñu fexee génnee xale bi ci jàkka jeeg ak yu demee noonu waaye ci yërmandeem moom sallallahu alayhi wa mu ne fas yéenee fas yéenee guddal julli gi waaye ba nga xamante rek dégg na xale buy jooy mu daal di eh, daal di gàttal la julli gi ndax rek ñewantal ak yërmande goo xamante ne yërëm na ko eh, ji kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yërëm ñu ci barke weeru koor wi yàlla yàlla defal ñu tawféex yàlla yàlla dimbali ñu kàttanal ñu yombalal ñu lépp loo xamante ne sant nañu ko eh, ñu mën koo jooxe comme ni mu ko bëggee moom suñu borom waaye ñu bañ koo defee comme ni nga xam ne noonu la ñu neexee te ñu ko buñ ko defee buñ ko dimbalee ba ñu def ko it yàlla nañu ko yàlla nangul ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke weeru koor bi barke alquranu karim ndax weer bi mooy anniversaire alquran ndax euh, da ngay gis jamono bi su kenn xaritam anniversaire am di waaj ñëw balaa moo ñëw dina ko commencé di def istati di ko dugal di wax naan jours yi mooy nangam waaye kun nag ñu xam ne nañ commencé istati alquran te xam ne anniversaire am ñëw na weer bii mooy anniversaire u alxuraan nañ ko préparé jox cër alxuraan màggal ko waaye bu anniversaire ñëwee muy bésu laylatul bi ñu feeteel ko ko màggalal ko ko noo xamante ne duñ ko màggalee leen ndax alxuraan mooy waxuk yàlla gi te waxuk yàlla gi gënee na ni yàlla gënee mbindeef mi noonu la waxuk yàlla gënee mbooleem xeetu wax yi ñu leen di nuyuwaat di leen ziyaara di leen yow di wax ne ñu ngi yemale di foofu waxtaan bi incha allahu ba ëllëg di ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp euh, seen mbokk woon seen xarit seen taalibe oustaz Alhaaji Diouf fii ci seen Mayenne 7 di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci senegal yàlla yàlla def jàmm ci kaw suuf wa axiru daawaana wa alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum